la la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 Hallelujah. la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la fa la ilaha illallah fa la la loo fekk ab baay faal di ko jëf lu ne loolu moo war a ndogu yi ab baay faal loo fekk mu di ko jëf lu ne ndigal la lu bàyyi ko ci borom Touba Xaadimu Rasuul ñëw ci maam si Ibrahima Fall Baabul Muridiina ndax saa maam si Ibrahima Fall daawul jëfe coobari ndigal la daan jëfe lépp loo xamante ne mu ko daan defal ku baax ki di borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ndigal lu bàyyi ko woon la ca moom ñëw ci maam si Ibrahima Fall doomam yi di ko toppatoo muy ndogu yi muy gàmmu gi muy tabaski yi muy addiye yi muy màggal ab Baay Fall loo gisati sëriñ Baye Fall si di ko def defuñu ko ci coobare ndax ñoom duñ jëfe coobare ñoom ndigal la ñuy jëfee ndogu yii nag fii nu nekk ci madinatu munawara ci njaarim fi la ko borom Touba joxe woon maam Cheikh Ibrahima Fall diggante 1916 ak di 1917 mu di ko togg fii la ko di ko togge ci Madina Munawara ndax bi mu ñëwee njaari 1916 dafay liggéey ñaari kër kër gee ca saw fa suñ si ndigal faal ne yàlla na fa yàgg nekk ànd ko wér moo tudd ma tudde ko makkatal mu karram sëñ ci kër gi tudde ko madinatu munawara muy makk ak medina ba mu ko wooyee jox ko ndigal li këram gi ci Madinatul Munawwara mu jëkk ko fee togge la wax ni ndog yi ma sëñ Bamba toggloo ku ma ci defal lu toll ni ab tànk danaa la ci defal loo xam ne doo yàqu adduna doo yàqu àllaaxira ab tànk nag mooy dërëm bu ñu xaaj fukki yoon moo def tànk ba loola ameen mu di ko togg fukki ndab ak ñaar fukki weerub ginaar ba mu demee tam njabootam gépp maase nag di ko togg la ko tàmbalee ci Cheikh Mamadou Moustapha Fall mu tedd ma ak mboolem njabootu maam si Ibrahima Fall rakkam yëpp ànd nag di togg ndogu yii di ko liggéey liggéey bu tedd bu sell bii ñu koy liggéey ba tey ajjuma yii nag nun ginnaaw bu maam si Ibrahima Fall jotee ndigalul borom Touba Xaadimu ci toggi ndogu 1954 sëñ Fallu Mbàkke woo Sëriñ Asan Fall ba mu ñëw mu jox ko ndigalul muy togg ajjuma ba ajjuma togg ajjuma ba ajjuma nag sëñ Asan Fall di ko togg di ko yët sëñ Fallu fu ne ndax da ko ma nekk nag moo ko fa indi fekk nañu ko Tuubaa Mbàkke jox ko ko fekk nañ ko tuuba Alié jox ko ko fekk nañ ko tuuba Ndindi jox ko ko fekk nañ ko Touba Bogo jox ko ko 1954 lañ ko tàmbali Serigne Assane Fall nag màggal gu mu màggal baatu Serigne Fallu boobee ci ndigalu ajjuma yi moo tax mu di ko togg ñamu Touba ñamu Touba nag mooy nii ngeen koy gisee ndawal képp la ko si Assane Fall daa togg naka jekk 54 ba léegi nii mosu koo togg nag wenn xeetu toggin bu doon ndawal kepp ndaxte jamono booba togg koo neex togg togg nañu koy cere togg nañu koy ceeb togg nañu koy macaroni togg nañu koy pomme de terre togg nañu ko lépp te lu ci nekk ñam mu sell lañu ko daan togg da ko joxe Mbàkke di ko jëfandikoo dina sant dinu ngërëm ngërëm lii ñëw ci noonu waaye nag si am na Fall li ma wax mooy dañu ko jaar ci yoon woo xam ni dañu ne yoon wu amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ku ci jaar war ngaa xam noo ciy doxe boo gisee te njubatu maam si Ibrahima Fall gépp nag gépp kenn ku nekk yokk nga la nga daan def taaral nga la nga daan def bànneexal nga la nga daan def suppi nga toggin wa nga daan def dëppale ko ak jamono ba nga xamante ni ñam bu gën a ñam bu gën a tedd wii mëneesu ko fekk fenn loolu njabootu Cheikh Fall yëpp ngi ci. sëñ Abdou Karim Fall nii nag ñamu Touba wii nag nga xam ne yàpp rek la ak mburu di ñamu Touba Serigne Assane Fall 1954 la ko tàmbale woon di ko togg ci ndigul sëñ Fallu Mbàkke togg yi moom jamono bi ko Serigne Assane Fall di def. quatre heures du matin la daan jóg ca Thiès nun dongo yëpp nu ñëw ñëpp bàyyi faal ya yu Thiès yëpp ak fu waay mën a jóge ñuy jóge Dakar ñuy jóge yeneen i barab di rey nag yi di rey defar jur gi ñu togg ko ci bëccëg bi bëccëg bi ci la ñu daan rey ci fajar gi mu noppi ñu defar lépp ci bëccëg bi sëriñ Amdi Khady Fall nag nii mu wax nii su ma ko mën a na ci ab ruq togg ko te kenn du ko gis dama koy def ci ab ruq togg ko te kenn du ko gis waaye nag yo yaatuwaay bi ak yokk gi moo tax loolu mënee ko ndax sëñ Assane Fall ñett jigéen la daan jox togg gii ñu di ko togg te kees kenn ku ne togg ñeenti ndab muy muy fukki ndab ak ñaar booba bu ñu defaree jur gi ba jël ndawal gi ba ñetti jigéen ñooñi kenn ku ci nekk fatu ak ak ak ak ña lay jàppale bu togg yi ñëwatee daa nuppi ba ñu ubbi ko indi ko si Assane Fall ci palanteer bi ñu ubbi mu gis ñu daal di koy ŋaaw yët sëriñ Fallu mbaa ñu ŋaaw ko yët sëñ Abdou Lahat bi fi sëñ Abdou Lahat Mbàkke nekkee kon ruq boobee ñu ko daan fat ñetti jigéen dong ñu am positif daa ko togg loola si am di xadi faane bu ko mënoon noonu lay def moo waaye nag ginnaaw nag yëf yi yaatu la te si am di xadi nii kuy defal ki yaa tuur da koy defal lu yaatu kii defal ki gën it da koy defal li gën te da koy defale ni gën moo tax yaatal gi moo tax ñu tàmbali nag bu alxames see ba jant bi soo nu tàmbali tër nag yi tam daal indi ginaar yi tàmbali defar gàtt yi bu bu demee ba ay deux heures du matin trois heures du su ñu rappel suñu ñu tàmbalee togg trois heures du matin jëm quatre heures balaa midi fi mu nekk nii tembe day fekk daanaka lépp nu péré loola moo waral teel gi ndax man miy soññee sëñ bi damay soññe loo nii buñ bu amul amul ti amul yàkkamti ka nga xamante ni daal mu mujj a ñorle su ñëpp ñorle woon bu ñu togg nangami téeméer te kenn ñorleegul kenn du ko yóbbu te ñëwul te kenn du ko soññit ndax kuy togg te kuy togg te la mu togg ñorul soo ko soññee lu si ya togg yow mi ko soññ yaa ko def am nag amul heure que mujj a jot ci nam nangami téeméeri ndab ñu tàmbalee rappel teg ci ñu rappel trois heures du matin jox ko ndab ak ki ñu rappel quatre heures et jox ko ndab mu jëkk koo taal ñaari waxtu moo ko jëkk a ñoral loolu daal rek foofu rek la aju waaye sëñ bi daal a ngi ci ci bi lu mu am dina ko ci def lu ko waay jox dina la ko ci defal nee na nee yii nag fasuma ko yéene wutal wutal ab limite fasu ma ko yéene wutal ab limite ndax ni sëñ bi wax rek xultu wayaa mii istarat umoosi wa futtu bil xamoosi fil xamoosi kon nag lii kat benn bal la ba jëm ñaari picc la la la la sëriñ bi mi ngi nuyu nuyu waaye nag ci ndigalul ay kilifaam sëñ Cheikh Khady Fall ak sëñ Moussa Fall nee na nan la ko saayewaat bu baax te gis nii sëriñ bi def ndax alal daa war a nuru borom nanu bàyyi xel ni fii day jeex fa nu jëm dara dafa jeex nee nag sëñ Sidi nee na àllaaxira amul lekk de jëf lañu fay dunde kon nag sunu jëf nanu ko fexee yaatal mu doon sunu dund kon nag sëriñ bi dafa wax ni nanu bàyyi xel ci te am murit lépp loo xamante ni tee na koo mën a sëriñ bi teyam jëpp ba am ngërëm la ko ko yóbbe mooy fàggu àdduna te àdduna deetu ko faggu dañ koy fàttaliku waa ab taqi fi ma atteeka laahu daaral axirata fii nag wala tansa nasiibaka mina dunya sëriñ ci di ne na nanu faggu àllaaxira mi nga xaminte ni moom la yàlla fagguloo ndax moom la ñu dunde te ku fa dem dara du fa jeex nee na gis nañu ko nii sëriñ Amdi Xadi Faal nag moom dani ku jaar ci yoon woo xam ni dañu ni amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ku ci jaar war ngaa xam noo ci jaare nee na kon nag dafa bëgg teyam ju nekk gatchil dimbam ndax da bëgg nuru mamam da bëgg roy mamam te mamam borom Touba dafa wax ni khultu wayaa mii is darat ummoosi wa fustu bil khamusi fil khamusi sama tay ju nek day gatchil sama dem sëñ bi de moma non mutafa ma ne ko faal mu ma ndogu yi ñu bëgg ma wutal ko ab limite duma ko wutal ab limite ko jaar ci yoon wu amul tànk ginaaw ku ci jaar di nga xam ci jaare mom nak neena lu mu ci def xeeb na ko ndax boo gisee duñu limu bool duñu limu nag duñu limu ginaar sëñ Amdi Xadi Faal ni na moom gisul li mu def li ko defal la gis nee na bu reyee genn ginaar yéene na junni bu reyee wenn nag yéene na junni bu defee benn bool yéene na junni du ko mënul nee na ki nga xam ne nag fa mu yegg man manam yeggu fa la mu def moom ku ko ko gisalit moom gisu ko moom lañ ko defal a gis waaye kon nag nan soññiwaat a ajjumaa ngi ci suñu kanam te dafa bëgg joojee bu ñëwee jéggi ji nan la ko saayuwaat bu nu bëgg dara du lu ngërëmul yàlla yitte nag bu dee so maanaam soxla bu dee bu dee ab taaw dina faju nun nun nun nun murit nun Baay Faal waaye nag nun waa Koosara ñi mu sañ a soññ te dañu soññ ak soppe yi ak wëllër yi bu ne bàyyi ko fii suñu yitte nan ko def ci sàkku ngërëmul yàlla ci liggéey bii nga xamante ni borom Tuubaa Xaadimu Rasuul maam lamp sa maam da koo joxoon maam si Ibrahima Fall Serigne Fallou fedd li ko jox ko Serigne Assane Fall 1954 muy ajjuma yii Serigne Amdi Khady Fall di ko togg ba ba njabootu borom Tuubaa gi mu fi dajeel sëñ Abdoulaat fedd li ndigal li sëñ Saliou Mbacke fedd li ndigal li Cheikh Mamadou Lamine fedd li ndigal li ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mii mooy ñaan sëñ Amdi Khady Fall nañ ko ñaanal sëñ Mountakha Mbacke yàgg fi te fekke ak tal ba li mu bëgg liggéey maam ak ngërëmu Cheikh Mamadou Bachir mu am ko te amaale nu ko di ñaanu itam nañ ko ñaanal magam ju baax ji ci kanamam di sëñ am di faal mu Cheikh Modou benn faal fan wu gudd ak wér te ñaanal ko magam ju baax ji fi bàyyi ko te bàyyi ko fi ak ngërëm muy sëñ ci jëmb faal sa borom jotale ko ci ngërëm maamam maamam Cheikh maam Ibrahima faal ak Cheikh Modou Taa faal ak mboolem nag seen mag ya nga xamante ni ñoo ko ñoo ko jiitu kon daal liggéey baa ngoog nanu fabuwaat nan fabuwaat nan fabuwaat sëñ bi ne nan fabuwaat la la fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah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 fa la ilaha la ilaha fa la la ha, la la la la fa la la ha, la la la la fa la la ha, la la la la fa la la ha, la la la la fa la la ilaha la la la la fa la la ha la la la la fa la la ha la la fa la la ha biir faal ak ñu teel fala la la la ndimbaloo faal ya ma dee doole biir faal ak ñu teel fala la la la ndimbaloo faal ya ma dee doole biir faal ak ñu teel la la la la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 la ha la la pa la la ha la la la la la la la la ha la la pa la la ha la la la la la la la la ha la la la la la fa la la la la la la la la la la la la fa la la la la fa la la la la fa la la ha la la fa la la fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah فلا إله إلا الله فلا إله فلا إله إلا الله فلا إله